moo koy sëriñ bi nee na muy mbooloo mi yëpp léegi nuyoo bi ñu ngi ciy jiital suñu doom ji di sëriñ Mouhamadou Mansour Sy Djamil léegi mi ngi leen di ndokkeel ci bés bi léegi li mu wax yëpp dégg nañu léegi nag ci ci ay teraanga teraanga yoo xamante ni ñu lépp ñoom la ko jagleel ci jëbbante ba mu daan jëbbante ak baayam jamono ya nga xamante ni moom mii ma koy wéttali ndax booba Serigne Moustapha xaw na wét waaye fu mu gestu rek gis suñu mag bi baax yi mu Serigne si jàppal fa tabaraka Allah sëriñ bi nee na loolu nag mooy cosaanu kër gi nee na ndax mag ñi loolu lañ fi bàyyi nag mooy képp ku ci tollu yàgg gisoo sa mbokk nga jóg dem seeti ko ba xam ca la mu nekk loolu nag moom lañu daan doxale suñu wàll moom lañu daan doxale suñu mbokk sëriñ bi nee na kon fa tabaarakallaahu nee na moom Mustafa Seydi Mouhamad al Moustapha Jamil ci boppam nee na moom Seydi Moustapha di Jamil ku fonkoon njabootu maam Cheikh Alhaji Malick la nee na yemu ca de ku fonkoon tariqa si ne Cheikh Ahmad Tijaan bi la fa nee na njabootam gii ñëpp ci loolu la yar itam nee na kon nag fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin ah sëriñ bi nee na kon nag yéen ñu ngi leen di ndokkeelaat ci gàmmu gi bu baax mu di gàmmu sëriñ Babacar Sy ñu ko daan def itam ci ndigalam cër yi ceer leen ko daan def déedéet gàmmu gi dem nañu foofu dirigé ay at déedéet ndokkeele ko suñu papa bi di fay ak Serigne Mor Ndiaye ndax kat ñoom ñooñu kat ñoo sos daayiratul muhsiniina wal muhsinaat te booba nag benn daayira amul kon nag fa tabarakallahu ñii ko doxale ni ñu ko war a doxale ah di ko doxal rek ci zahir ak ci baatin kon nag fa tabarakallahu xale yii nag ci loolu la ñu màggee ma ne nag waaye bu ñu ko naree defal nañ ko indi fii ci gën tàppe ndax mbokk yëpp a ngi bi ndakaaru yëpp a ngi fi. suñu wàllu ndey suñu waajur wu jigéen walla ma ngi fi fa tabarakallahu sëriñ Babacar Si ci boppam radiyallahu taala anhu ah nee nañ ku fonkoon Dakar la moom sëriñ Babacar rawatina nag mbokk yi la ñëw yi dama rek moom ku leen joxoon wa tabaarakallahu kon nag lii su amee dafa mel ni du dara lu dul dekkal cosaan nag dajale waat mbokk yi rek ñu xamante ba mu ëllëgee ku gis sa sànni sa mbokk biir yi fa tabarakallah sëriñ bi nee na wàll gi ci des itam mooy suñu néegu ndey yëg na ne dañ ngeen ko ci gàmmu gi fa tabarakallah nee na gàmmu gi daal ñëpp ci وتبارك الله موجود المسلمين المتحرك وتبارك الله شنو يقولوا سيدنا بسيدنا بابا قاسم محمد المنصور خليفة جنة خالد التجاة اه موجود تم تحول استحواذ بك نيرة قام موجودة فوجد يب تحول انت لك fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin nee sëriñ bi nee mi ngi dellu di ñaanaat ci barke sëriñ Babacar Si nee na la ko naaru dawaali ba waxoon moom suñu suñu baay Babacar Si te kat koy wax loolu góobu góor gi ak amagul woon tabarakallahu benn daraja xëy na ko judduwaale daraja waaye ñoom ñoo baax ñoo xëy noonu waaye siri bii dafa xali baa nag moom koy wax ci biir wayam wa ay waay yëpp na xaaji Maalik yi yow doomu Alaaji Maalik ji maalaka amul kenn ku nuur yow nag amul kenn ku nuur yow amul te la la teraanga dë dëgg na nee na ñu teraanga ñu koy jëlee mu yëpp ci yow waaw xaalis bi te te ci lu jege. yow ñu ne di nga mas a nekk nag ci kanamu sëriñ sépp ci wóoru yàlla yi allahu akbar ليه على رجحت البرايا كما ذهبت البحار بغاب الحمار بغاب عن الحمار لأنه كنت يجيزني نيب كم في الكورس أمون ni doxee di jiitoo mbaam noonu nga di noonu nga di jiitoo jaamu yàlla yi mais boobu daraja la dawaa yi moom nga joxoon Serigne Babacar muy si Malick mu dellu wax ko tabarakallahu rek moo tax lii ngeen di gis fii yëpp ci la rek la moom Serigne Babacar ak ak ñaanam du nangu rek la. mais ñeneen sëriñ Babacar masul denc yéen tëru denc moom nee na du denc ci guddi wala bëccëg sëriñ bi nee na ñu dellu fa tabaarakallah sëriñ si Ahmed ne yàlla na leen ci yàlla saxal yàlla dellu saxal leen ci tariqa bi ndax bu ñu demee ca Kuufa ba kat waaw mu ngi yokk borom tariqa bi ah yow daal Cheikh yow daal yow yaay mu ngi ci kulli awliyaa illaahi rahmaan yow yaay yow yaay tëbb képp kuy wëli yow ñëw si xamante ne Serigne bi yaa koy tëbb. bon Cheikh mu ne xanaa si ko Serigne bi mooy Abul Abbas ñu ne ko xam nga ne ko sëñ Babacar mu ne kooku mooy Ahmad Tijaani ne ba ba ñu dégg nag nga xamante ni moom la. yàlla nañu yàlla jékkal ci tefesu jahanama ah sëriñ bi nee na kon naan fa tabarakallah sunu xaalis bi si kon nag mbir war nañu waay ah sëriñ bi nee na dañu dellu dalal xel yi rek te xam ni lépp dina baax jërë ngeen jëf sëriñ bi xanaa ñu leen seedeel rek a leen seedeel keroog kër yi ci gàmmu gi maa ngi la koy wax keroog léeg-léeg ñu ngi gis ni suñu Pape Sëñ Babacar waaye biñ la xoolee te xoolaat la ba ñu li ñu gis ci yow mooy li ñu wax Sëñ Babacar ca noppeem nga ca tekkam ja ca dalam ja waaye ci la góor nga te feeñ lool yàlla fay leen waaye si yow itam noonu nga mel dara mu tegu ci laa xarwa andi dina moom du waale dëggu waale tëggu xawlu xadimun lakum loolu xawlu jooju fii ka sahar mënu la ñàkk bàyyi nuru doom doom nuru bàyyi tudd ñàkk doom doonu bàyyam loolu nag nëbbu woon na waaye ceebar gi ñëpp xam ne moom alaa ni leen gëmmu gëmmu la fi ne ku xis ba tam ne la jàkk gis na Serigne Babacar Sy waay billaahi wallaahi tallaahi ku la xool duutu àdduna xool ko dañu war a xool ci yàlla pire te yàlla may ko noonu ñu naan firum la rek billahi laa ngi sëriñ Babacar si te sëriñ Babacar ku ko gis sa yaram xaram la sa bara kon nag si dama la dëggale moom cëri cër laa lay dëggale waat rek ñaari bëy soo ma ko mayee ndigal may nga ci digal si yow yaay mooy di jële wax mooy am damay baalu ak ndax ma tardé هيهات أين المسكون نفعاتها ما المسك إلا عجيبة بدماها بشرت فرحا بما na ñëpp toog ñu def ñaan toog leen ñu def ñaan ñaan ñëpp toog di la see delluwaat moom ñun ñu taxawoon taxawoon ñëpp. saa yi. ñëpp tàllal loxo yi. bokk yi ñu toog ñuy ñaan mu nekk benn ñaan nag. sëriñ bi ñaane ba pare bu kenn tàllaatal loxo. ñëpp tàllal loxo yi. allahumma amiin. amiin. yow. امين امين آمين اللهم آمين من يقوى آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين آمين آمين آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا آمين وما تدعو من شيء آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين الحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم آمين آمين Zam, zam, la, zam, zam.